acca egsi nañ ci combat spécial bi diggante Toubacouta bu Ngeexoox ak Ferraille bu Pikine Mbolo ndeysaan arbitre baa ngi waxtaan ak moroomu arbitre am ay ca Toubacouta moo wan ginnaaw mooy njool mi Toubacouta moo wan ginnaaw ndeysaan Toubacouta Ferraille laa ilaaha illallaah am na benn waaw Toubacouta ak Ferraille dafa sànni ki nga baay wax ak ñoom arbitre sifflé na Toubacouta Ferraille Toubacouta Ferraille Toubacouta Ferraille Ferraille day dem Ferraille attaquant la Toubacouta amaat na trois deuxième avertissement ndeysaan arbitre sifflé waat na Toubacouta ak Ferraille la ilaha illallah Toubacouta ak Ferraille Toubacouta moo ñu wan ginnaaw Toubacouta Ferraille luy xew tey samedi 3 décembre atum 2022 arène nationale Boguel production moo woote Toubacouta ak Ferraille attention Touba dóor na léegi Touba sànni na léegi lu muy def Touba Kouta Ferraille ndax rañaan da ci am am déet attention Ferraille ngi dox ci kawam arbitre attana Touba Kouta Ferraille ñaari ngemb yu weex Ferraille lañ jàkkaar lool Ferraille Touba Kouta Ferraille gëdd na ko Ferraille gëdd na ko Toubacouta Ferraille Ferraille sànni na Ferraille Toubacouta attention Toubacouta jam na léegi benn xeex na ñoom ñaar xeex na ñoom ñaar Toubacouta Ferraille xeex nañu xale bi ngeexoox bi Buur Saalum moom Toubacouta mu ngi dajeek Ferraille doomu Pikine ndaysaan Feeraay doomu Pikine laa ilaaha illallah attention Toubacouta mu ngi dox ci kaw Feeraay Toubacouta Feeraay Feeraay Toubacouta Toubacouta door na léegi Toubacouta ak Feeraay Toubacouta Ferraille attention Ferraille dox na ci koom dox na ñoom ñaar laa ilaaha illallah Toubacouta dox na ci koom dóor Ferraille taxaw na Toubacouta Ferraille attention Toubacouta dafa mel ni Ferraille na jàpp Ferraille na jàpp bañ na bañ na luy xew bañ na laa ilaaha illallah Toubacouta daan na Ferraille Toubacouta daan na Ferraille. daan na Ferraille ko. la ilaha illallah.